solo bi nga xam ni wuy bi moo gagné ci département de Thiès ah wuy bi yaakaar naa ñëpp euh, d'accord nañu ni président de la république moom la soxla woon waa département de Thiès jox nañu ko ko donc donc léegi mbégte rek lañ ci am euh, mais nag euh, feetu nañu ko léegi dañoo jublu ci li nga xam ni moo ñuy xaar ñun yàgg nañu wax ni progression arithmétique la ñuy def yaakaar naa ñi ñu suivre depuis 2009 xam nañu ni ñuy fonctionner comme yàlla def na mën nañu calcul 1 plus 1 égale ah donc léegi fi mu ne nii am nañu yaakaar ne ñu ngi avancé euh, tey léegi waxtaan nañu gox bu nekk wax na donc jafe-jafe yi mu amoon ci élection yi mais gëm nañu ni jafe-jafe yu mineur la war nañu ko mën a saafara fekk fii ak mille 2017 te 2017 bi nga xam ne moo ñuy préparé pour 2019 mais am naa yaakaar ni Benno Bokk Yaakaar dëgër na Thiès euh, te loolu dama ciy félicité responsable Benno Bokk Yaakaar yëpp. moo xam PS la moo xam AFP moo xam PIT moo xam euh, mouvement yi moo xam ñëpp ñi nga xam ni vraiment dañ ci dañoo jàpp ci liggéey bi donc maa ngi leen di féliciter di leen wax ni instruction président mooy ñu ànd te ñoom wax nañu ko fii ba mu leer nii dañoo fas yéene ànd ak président de la république te loolu yaakaar naa euh, neex naa dégg donc vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant di féliciter aussi seen njiit yi moo xam euh, président Moustapha Niass la moo xam président Tanor moo xam président Amath Dansokho ak tous les grands responsables vraiment ñi ngi leen di féliciter di leen gërëm di leen wax fii Thiès ànd nañu bu baax a baax ci Benno Bokk Yaakaar politique nag problème mënu cee ñàkk mais am nañu yaakaar ni euh, bu ñu ñaanee ci suñu borom euh, dinañu réussir suñu combat bi parce que combat bi dou pour président Macky Sall pour Sénégal la maa ngi leen di gërëm di leen sant. C'était une réunion bilan après le référendum. Euh, je pense que les responsables et militants en avaient besoin. pour échanger un par rapport aux résultats qui ont été Mais nous savons tous que nous nous préparons à d'autres échéances. Il tout à fait normal qu'aujourd'hui, militants et responsables puissent échanger euh, pour préparer les élections futures. Je pense que la victoire est maintenant derrière nous. Nous l'avons fêtée, maintenant nous, nous tournons euh, on a perçu et par collectivité. Chaque collectivité avait des problèmes spécifiques. Et nous avons proposé à ce qu'il y ait des rapports circonstanciés et qui nous montreront exactement euh, là où nous Je pense que dans rapport, nous, nous l'aurons et nous des corrections très rapidement avant 2017. Je pense quand même que le vote euh, venu de l'intérieur est assez faible, hein, est et nous allons procéder à des corrections. Nous allons rendre compte en tout cas au président de Benno Bokeyakar et je pense qu'il nous mettra sur la voie.